milliards ñi nga xam ne ñoo si duggagoon ni ay ndaw daal di si participer toll na si ñaar fukki junni ci ndaw ñoo xam ne jógee nañ fenn fu nekk ci ay région ci Sénégal ak yéen gi di réew mi quotidien ci am yéen a kaay gi di la sa bàyyi mbir moomee waax ci Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Kaolack ñoom nag dañoo njort ne Serigne Mboup mi nga xam ne moo gañe mairie bi dafa dil ak ki nga xam ne mooy Mariama Sarr Mariama Sarr mi nga xam ne moo nekkoon maire yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy muy wax ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn bëri na ci ay coalition yoo xam ne maanaam am na ay rëq-rëq daat nay wax tamit lu soxal wàllum parité bi bëri na ñoo xam ne respecté wuñu ko naam am na fu bari foo xam ne respecté nañu ko mu sant ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñu daal di jëfe li nga xam ne moom la ñuy waxoon ne ay promesse ay yéen a tey di réew mi quotidien docteur Fatou Sow Sarr daat nay wax ñoom xeex bi nga xam ne moom la ñu sumb ci lu jëm ci borom ñaari tur yi nee na ëpp ci Sénégal yi ñu ci benn yoon yéen a kaay gi di Les ko moom xëy duñu wax xanaa ñu Bamba Fall maire bu Médina bi nga xam ne moo nekkoon candidat gëm sa bopp ci élection locale xam ne moom la ñu génn Bamba Fall daan nay dem fekki Macky Sall Sall liggéeyal jamono ji ma nga ca wetam moom Bamba Fall nee na am na ay ministre yoo xam ne ñoo ngi ci gouvernement Macky Sall bi jamono ji ndax dañu leen a dóor dóor yu métte métte nga xam ne moom la ñuy génn ku ci mel ni Omar Gueye mi moo nekkoon maire bu Sangalkam ak Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo nekkoon maire bu Yoff ak Amadou Hott mi nga xam ne moo doon xëccoo yëmbal sud ak Bara Gueye yi Bara Gaye dóor ko fa dóor yu métte métte Abdoulaye Diouf Sarr moom ñaari ñàkk la ñàkk ndax ñàkk na Ndakaaru ñàkk na Yoff te nag li nga xam ne moom la ñu nemee maanaam lébu yi dañoo ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ndax boo demee Yoff ca lébu ya Benno ñàkk boo demee Ngor ca lébu ya Benno Yaakaar daf koo ñàkk boo demee Wakaam ca lébu ya Benno Bokk Yaakaar daf koo daal ñàkk a kaay gi de la turbine nee na bu ñu waxante dëgg Macky Sall ak problème yi nga xam ne moom la jànkonte la bëri na genn xeetu bëri koo xam ne fu ko waay nat daan na koy passé Macky Sall boobee tëjoo ndax gerew yu tëdd ak yi am ci réew mi nekk njëg yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku na ma ngi yokk yéen nañu ñoo xam ne yokk na mën a wàññeeko yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar nañu ndaje nga xam ne jàngalekat yeek état bi doon nañu ko amal ngir nag waxtaan bu juboo mën a am seen biir juboo amul lajj la mbir ma def neuvième plan d'action boo xam ne syndicat yi daan nañu koy teg yéen a kaay xëy dañu xibaar nañu école bi jamono ji dugg na ci crise boo xam ne soo muytuwalee du ci gaaw a génn ndax syndicat yi ji fa nga xam ne fa la ngànkoon ba léegi ni bàyyeeguñu ko ko yéen a kaay gi di Sud Quotidien daal di xëy wax nag ci négociation yi nga xam ne état bi doon na ko def ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi mbir mi demul cëng dikkul mbay laara ñi nga xam ne ñooy syndicat jàngalekat yi ñoom nag nee nañu ba léegi état waxugul lenn loo xam ne maanaam lu leer la ñoom nee ñu état bi dafa layaam layaam yi yéen a kaay gi di Walf Fadjri nee na état bu Sénégal ma ngi ci pression bu mat sëkk yéen a kaay gi di Le moo ne day état bu lu toll ci 69 milliards tegal ko jàngalekat yi jàngalekat yi daal di koy gedd ñoom nee nañu loolee dafa tuuti ak li nga xam ne moom la leen état war a jox ni xaalis yéen gi njiital réew mi quotidien nee na juróom-ñaari soldaara yi nga xam ne jamono ji teg nañu leen loxo Salif Sadio nee nañu tey ji dinañu leen bàyyi yéen a kaay di Sud Quotidien Salif Sadio tey ji ci altine ji dina wax kañ lay libéré ñi nga xam ne ñooy soldaar yi mu teg loxo yéen a kaay gi de la ñu fekk fa Thierno Alassane Sall nee na askanu Sénégal ñoo war a ngir nag ñu bañ fàtte sunu soldaar yi nga xam ne teg nañu leen loxo yéen a kaay gi de journal bi nee na am na benn jigéen boo xam ne tegaat nañ ko ci loxo kookee aéroport la ñu ko jàppee dafa bëggoon a tukkee gi de Les Échos Abdoulaye Sow ministre moom nag daat wax ne bëri na ñoo xam ne jógoon nañu dem ci ay sëriñ ngir yàqal équipe nationale bu Sénégal ngir Sénégal bu ñu jël li nga xam ne maanaam mooy coupe d'Afrique bi waaye nag ñooñu dañoo fàtte ne yàlla li nëpp doole yéen a kaay gi di Stades nee na Edouard Mendy góolu Sénégal bi ginnaaw bi mu jëlee li nga xam ne mooy coupe d'Afrique bi daan nay jël mondial des Ndiaye seen revue de presse